sécurité ndax daa war a bàyyi France dem Russes yi gis nañ leen ñi ngi gën a dëgëral seen i bànqaas en Afrique. waaw côté ASP yi moom désigné nañu désigné nañu directeur général bu bees. te mi ngi liggéey si loolu félicité. capitaine Touré donc euh, si loolu pour xoolaat parce que ASP yi am na ñoo xam dañ leen détaché yóbbu leen gendarmerie ñeneen ñu yóbbu leen police. et te loolu lu ñu war xoolaat la pour quand même rationaliser un peu seen emploi. kooku moom mi ngi si liggéey li nga wax c'est très juste maintenant par rapport ak ñun euh, sur le plan euh, de la sécurité ou de no relations avec euh, euh soit pays yi nga xam ni moom la ñu bo bokkal ay frontières wala ñeneen ñi nga xam ni ay puissance la ñu comme France bi nga xam ni évoqué nga ko ak Russie kooku je crois que suñu politique déjà c'est clair du euh, ñu waxee du ñu jëlee souveraineté def ko au cœur de l'action gouvernementale souveraineté alimentaire souveraineté sécuritaire et cetera dañu bëgg wane ni ñun mënal nañu suñu bopp te suñu destin dañ koy jëlal suñu bopp <coughs> euh, ce qui fait que du ñu nekk aussi ñoo xam ni dañuy dax kii pour indi fi keneen Sonko masoon na ko fi wax ni c'est pas da ngay ñëw ni da ngay dàq France aca ust Russie ñëwal mm-hmm. loolu du souveraineté donc euh, li ñu wax aussi mooy suñu relation par rapport ak France c'est pas contre les euh, les Français euh, c'est pas contre la France en réalité mais c'est contre euh, l'État français et la politique coloniale bi nga xam ni moom la ñu mëne ba tey parce que ba léegi doo gisee force yi nga xam ne dañu stationné fii depuis la colonisation ba léegi ñu ngi fii euh, Abdoulaye Wade bi mu ñëwee defoon na ci un grand effort maanaam parce que boobu dépassé woon nañu mille cinq cent ak mille cent yooyu lañu ñu nekkoon. ñu wax les forces françaises du Cap Vert ñu wàññi leen ba mu des environ lu mat ay juróom euh, euh, ñetti téeméer ak juróom fukk. léegi ñoo ñu fi des mun nañu dellu France parce que njëriñ bi ñu ameel man gisuma njëriñ bi ñoom léegi dañ naan way duñ fi dañ ñu fi nekk dañ fi nekk pour dimbale euh, pays bi ak yenn ñi nga xam ne ñu ngi si sous région bi euh, pour suñu leen waree defal ay formation ak yooyu suñu waree tàggat. ak yooyu loo tax ñu bëgg leen fàcc waaye loolu du raison. pour ñu continuer toog Sénégal mën nañu libérer base yi libérer emprise yi ñu moom seen bopp parce que foofu suñu fa toogee en fait France la fi ñu nekk yëpp c'est considéré comme la France en réalité euh, su ñu demee coopération bi mën na continuer. formation ñuy def ay manœuvre conjointe wala yooyu yooyu armée yëpp dañ ko soxla parce que armée bu nekk bëgg nga mu am ñeneen ñoo xam da ngay nekk ak ñoom. pour euh, nga adapter sa stratégie et donc mën na nekk mais loolu dafay nekk de manière conjoncturelle su ñu waree def dara dañuy ñëw ñu def ko après ñu delluwaat mais pas basé wu ici vraiment am fi ñoom tam seen souveraineté loolu moom euh, am nañu xam nga li si am solo xëy nit ñi trois cent cinquante heures la ñu gis. mais euh, xam nga Sénégal dafa nekk benn base bu stratégique. Euh, su amee conflit dans le monde la plupart du temps dañ koy utiliser dañ leen koy jox ñu kii ko moo tax li nekk ci accord de défense yeeg yooyu il faut que ñu kool ko aussi bu baax a baax a baax pour remettre certaines choses en cause man je ne suis pas pour que ñu maintenir tout comme ça. mais est-ce que c'est pas dangereux hmm? aussi de le dire de manière radicale il faut que. Euh, occupation armée française seen kii jóge fa est-ce que mënuñu ko def de manière je sais pas de manière graduelle petit à petit pour ñu bañ a am rupture brutale. non du nekk boo xamante na mun ay conséquences diplomatiques entre la France et le Sénégal. non je crois que xam nañu autorités yi xam nañu noonu la ñu koy defee te même la France est préparée euh, ñu ngi wax ni bon dañu def réduction ñoom. formule boobu lancé nañ ko. Mhm. daañu réduire les forces ko def non réduire les forces sax mais de manière graduelle et tout mhm. mais da ngay am conséquence aussi par rapport ak li ngay woote su fekkente ni dañu bëgg suñu souveraineté et puis 350 c'est euh, c'est quoi ce n'est rien. Mmh. c'est qu'en réalité ñoom aussi dañu am seen yenn intérêt fi nekk euh, c'est ça qu'il faut dire c'est la réalité. comme quoi par exemple. mais. il nous surveille fi ah il nous surveille. non pas, <laughs> pas forcément surveiller il y a des de renseignement yooyu yëpp si la bokk mais fi ñu am tànk fii dafay tax fépp fu ñu mën a am euh, ay opération yu ñu mënee parce que xam nga ñu comme c'est une grande puissance am nañu Euh, droit de veto euh, et il faut que ñu montrer cette puissance là. Mm. léegi Afrique dafa di euh, foo xam ni dañuy soxla di intervenir très souvent. de de de différentes manières nag présence bi am na am na ay études de renseignement boo xam ni non seulement pour fi ñu stationner mais pour euh, voilà. comme l'opération Serval ils avaient leur général ici. voilà. c'est dû à la position du Sénégal ouvert sur l'océan moo tax voilà. waaw bi dafa dafa. dafa stratégie euh, participer nañu conflit yu bari te fii tey du amoon beneen conflit mondial aussi euh, toujours dans ces conditions là France dafay. revendiquer truc alors. d'accord utiliser ko comme. alors colonel nan nga jàngatee tey euh, li ñu décoré le général Kandé nga xamante dañ ko def légion française tey dañ ko d'autant plus que récemment def na les jours gras euh, de la presse en tant que colonel yéen ngeen bokk ci milieu bi ngeen évolué na ko jàngatee wala c'est quelque chose de normal. bon man je trouve que peut-être dañ ko jox euh, importance boo xam ni amu ko parce que généralement euh, même yeneen chef d'état-major yi. parce que dañuy liggéey ak euh, les forces françaises yi fi nekk généralement ñoom suñu dee dem sax nay commandant de forces yooyu dañuy jël yenn Sénégal yi décorer leen ñu am seen médaille pour ñu remercier leen pour si liggéey bi ñu doon liggéeyandoo ensemble. Mm-hmm. coopération bi ñu def maintenant. mais le moment choisi. waaw moment bi bi mu dikkee la xam naa ñoom dañu considéré ni comme léegi jóge na affecté nañ ko. nekkatul foofu. c'est le moment de lui témoigner aussi seen satisfaction pour remercier ko si liggéey bu mu doon liggéey ak ñoom mais en tout état de cause c'est vrai que moment bi ñu choisir aussi euh, moment la boo xam ni c'est pas propice mhm. moom nañu xool na nañu koy dafa wala ñu xaar tuuti. mais quand même c'est quelque chose mm. point ba mbirum pétrole Issa. mais avant pétrole bi sax xarit boo doon rek ma ko mën a may dama ko bëgg na laaj ci drogue bi. drogue bi fan yi ni ñu koy déggee Sénégal bari na lool euh, docteur par rapport ak lii li li xew lan moo waral Sénégal jamono ji mu bari drogue mu mu nekk benn dëkk boo xam ne en tout Sénégal ah mais mu nekkoon léegi doo gisee li ñuy def soreetuñu foofu ah parce que léegi avant ay hashish nga daan dégg ay <laughs> drogue yu kii yooyu mais léegi da gis ay drogue dure moo fi moo fi dugg si. waaw ay cocaïne la ñuy wax. voilà et puis euh, des valeurs yu am importance. Mm-hmm. bon heureusement que. suñu euh, force yi nga xam ni ñoom ñoo chargé wu de ñu ngi am ay résultats xëy loolu ba tey dana euh, dissuader mais euh, loolu dañ ko war xool man je crois que euh, il y aussi un problème politique si biir parce que doo gisee euh, avant cette dernière alternance li xewoon si gis nga doo gisee construction yi ni muy Il faut tourner, il y a des, des, des gens qui sont vraiment dans le bien-être, on est xaalis bu créer bu mag et tout ça doo xam xaalis bi fu mu jógee en réalité fekk yooyu yëpp affaire drop bi la donc euh, menace la c'est une menace très grave boo xam ni il faut que euh, ñu yokkaat ñun suñu jumtukaay yi nga xam ni dañuy xeex contre euh, ces types voilà des drogues pour essayer de Euh, voilà de les arrêter. d'accord alors euh, baa ñu dem ci mbirum paro il faut mhm. ma dem ci euh, Pa Moussa Pa Moussa dañoo gis ni régime bi ba mu daanoo rek ñuy def ay saisir record ci drogue loolu lay traduire. que beaucoup de passé lu bëri ngi doon jàll. te leer na loolu tamit baadoola dugalu ko ci réew mi donc ça veut dire que ni effectivement euh, au vu des résultats yi ñu sentit le Sénégal devient de plus en plus euh, une plaque euh, tournante de de de ces narcotrafiquants là alors loolu loolu nag jàpp naa ne c'est inquiétant parce que li fi jàll ngay jot a xalaat euh, ak yi nga xamante ne defoon na actualité. waaw mooy ab fan la mujj am c'est ça ce qui est ce qui est inquiétant actuellement donc tey jii nii bon peut-être avec le changement de régime euh, gars ils ont envie de montrer que voilà ils sont en train de travailler quoi mm-hmm. mais en définitive euh, lii amoon na fi mm-hmm. à un certain moment donné après tamit. da ngay gis ah, dossier yooyu am fii nii d'ici euh, depuis. Euh, ah, deux ah, mois trois mois beaucoup plus.